dëkk boo xamante ni boobaak léegi war na def siècle ak lu topp parce que mil cent 1902 ak léegi ku ne xamante ni euh, dëkk bu yàgg la boo xoolee dëkk bi ci kër Simbiri spécifique si kër dëkk bi dem na 2000 hectares habitants yi fi dëkk juillet bii di passé euh, ñu ngi ci 2500 et quelques tey boo xoolee boo xoolee dëkk bi recensement bi dem na ci 4000 mile poussière ñoom doo xam ne ñu ngi dëkk ci biir dëkk bi. nit nag bu jógee fee ànd benn titre boo xam ne 1672 la ne moom moo fi moom benn 1 seize mille seize mille six cent soixante douze monsieur il s'appelle monsieur Ibrahima Fall seize mille six cent soixante douze la ñu àndil comme euh, comme comme benn titre ne moom moo ko moom imam bi toog ak jàkkaam da leen bindal arrêt d'escos ñoom dem na wuyu ji ba ñëw maintenant nag ñuy ñaan autorité dëkk bi surtout ñu ngi interpeller le président de la république monsieur président Diomaye Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko ak bépp autorité boo xam ne yaa ngi gëkk ci dox bi ñu ngi leen ñaan lii ñu gaaw a teg ci seen loxo balaa muy jur fitna ñu ngi ci oo tamit kilifa diine la xalif général des Tidiane la xalif général mu Mourides ak bépp autorité ba ci chef église bi ñu ngi leen leen arrêté di leen ñaan di leen wax ne ñun ñi nga xam ne ñoo bokk dëkk fii boobaak léegi mu yàgg nit jóge fee ànd benn titre bëgg ñoo déjjati ci maali foro te ñu nekk fi ak suñuy njaboot duñ ko nangu dañuy ñaan nag autorités yi lu ñu ci mën a dimbali nañu dimbali balaa muy jug fitna bu ngeen demee ci image bi xool bépp kër buñ fa alerte fuñ ko bind ay doomu aadama ñoo nekk ci biir te it beneen bi ci des ñu ngi yëkkati sunu kàddu di ñaan autorité yi nga xamante ne ñoo ŋànk réew mi nañu dimbali askan bi pour ñu am seeni i këyit nañu dimbali askan bi pour ñu am seen i këyit ndax ñàkk am suñuy këyit yi nga xamante ni moo tey ñu moom suñu suuf tey ji moo ñu andil gàllankoor bi kon ñu ngi ñaan autorité yi ngi war a suuli lu ñu mën a dimbali ñu wàllu askan bi te it yaakaar naa ne président de république bi muy diggee pour jël réew mi ñun ñoo ko fal am na lum ñu digoon nag ni bis ko fi yàlla tegeel am na loo xamante ni dina ko réglé kon yàlla dénk leen réew mi seeni njaboot ñu ngi leen di menacé parce que Déniké ci sud ak li ko du fii rek Kër Simbiri bëri na ci gox yu ñu wër yoo xam ne saa bu ñu yeewoo Descos mu ngi ñuy menacé te bu ñu sañoon nag du ñu mettre en mal ak Descos parce que Descos xam nañu li ñu def ñun la ñuy protéger mais bu ñu mettre en ak ñoom ay nit boo xam ne yaa ngi sa biir kër dafa yeewoo ak sa njaboot fas yéene faa dund sa njaboot nga xëy un beau jour yeewu rek Descos ñoo bindal fi da nga ko ca kaw te yow nga xamante ni yaa nekk fii dëkk fi yàgg sa njaboot mënoo fexe ba am benn kayit bu ñu la jox loolu moom metti askan bi loolu moo metti dëkkandoo yi li ñu fas yéenee def mooy bu ñu jógee fii dinañ jox ci kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk réew mi dinañ dem ci kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk gox bi parce que foofu mu nekk bu fekkente ni bu fekkente ni bu fekkente ni dañ ko jox titre mais titre bi ñu ko jox foofu ay nit fa nekk ay nit dafay yeew ak seeni dëkk te ñi nga xam ne ñoo moom manque dëkk bi kii fa la juddoo 1902 ba léegi dëkk baa ngi existé te titre am 2014 moom la ko ñu ñaan autorité nag lu mel ni nañ ci taxaw parce que buñ ci taxawul ëllëg mën na jur fitna